kat ba nee na na nga fexe ba xàmmee lu new rek lu duuf bari na ko toilette romb la nga naan diw de dafa jekk léegi te fekk dafa newi yaa ko yëgul waaw dafa newi de mat na xàmmee de
سيدنا قدس العباد جميعهم xaaral tuuti maa ngi ñëw xaaral tuuti xaaral tuuti dañoo nekk ci jamono joo xam ne li ëpp ci li ñuy communiquer nit ñi mooy lu leen delloo ci seen borom tabaraka wa taala parce que loolu rek am njëriñ kay ah sëñ bi de ajaratu jaal mbay nee na nee na moo ma jox jaaro or bii naa dem jox ko sama soxna ci Seydil Hadj Malick ni ma doon wax nee na mi ngi lay nuyu nag waa kii nag dafa naa lew na xadijatu nag ah ah Abdou Aziz it soxna sa feetu mbaay moo ko jox ceen gi nee na na ko jox ndey paala jubal fe de bul jàdd de jubal fe de sëñ bi sëñ bi nee na sëñ bi nee na jàll maa tudd baayam moo tax mu jox ma or bi ma eggal de jamono bii ñu nekk li ëpp ci li ñu war a communiquer doomu aadama yi mooy luy dellu ci ñoom dëppoog seen conscience gën leen a xiir ci seen borom parce que leneen amul njëriñ leneen amul njëriñ de si de xajmaari liggéey bi yëpp biir baag bi ci ba lool rek mu ci rax leneen bi ci des tamit di ko koo di ko ci sedd yi gaa ñu doon bàyyi xel suñ bopp gaynde day muuñ waaye reewul de gaynde day siiñ waaye reewul ah ida raayta nuyoo nuyóoba laysi baarizatan fala tagunanna anna laysa yabtasimu boo gisee ba ñu gaynde génn ci biti bu mu tax nga defe ni gaynde day ree noonu diine ji ak noonu tariqa bi nañ leen bàyyi xel te foogu leen te waajal leen ci xam-xam ngir jëmm yàlla te waajal leen ci yitte ngir jëmm yàlla ok ah soxna si nee na ma ko dolli ci ma jox soxna si après ngeen koo toppandoo yéen ñëpp de ok ok ok ma égale kon yàlla noppi na ci ruux noppi ci wërsëg noppi ci jëmm ji mu des nag lu ne waxtoom xam nga coow li lu ko indi gaawantoo lu yàlla yeexe wala yeexe lu mu gaawtoo loolu rek indi coow li soo gaawantoo lu yàlla yeexe la ciy mujj mooy nga weddi yàlla soo bëggee yeexe lu yàlla gaawe la ciy juddoo moo di nga weddi yàlla jaam piir danaan dootuma tàmm moo tax am na benn góor ci ñi Seydi Hadji Malick yar muy Serigne Hadji Touré bi mu feebaree médecin bi ko doon faj Meysa daf koy defal ay juin di ko laaj di ko laaj ba yàgg mu ni ko loo bëgg mu ni ko bañ a bëgg laa bëgg loo bëgg mu ni ko bañ a bëgg laa bëgg comme bëgg naa yàlla ba noppi lu yàlla bëgg maa nga ci biir bëgg-bëgg yàlla ba te loolu la Baye Youssoufa Diop wax Baye Youssoufa Diop kenn la ci Seydi Hadji Malick yar nee na bu yàlla bëggagul lu la neex bëggal waaye bu yàlla xasee ba bëgg faral sa bëgg-bëgg ba tànn bëgg-bëgg yàlla te ñoom ñëpp ñu ngi ko jëlee ci seen xaaji maanaam turidu rabbuna muridu wa urid wala yakunu rabbi xayru ma turid
مريد وأريد أريد ربنا مريد وأريد ربنا تريد ربنا وأريد منا لا تريد ربنا أريد ربنا منا لا تريد ربنا أريد ربنا لا تريد ربنا أريد ربنا لا تريد ربنا أريد وأريد الله ولا يكون رب خير ما تريد لنا قدر لنا رضانا وتكن ما لكل ما تريد يا حكيم حكيم يا در ولا يدعد لنا يا مخرجات مخرجات واجعل لنا من كل جرح مخرجات مخرجات مجيد بالاول ثم الاخر صل على بر الغلام الاخر ظني ان بالواسع الحكيم على رسول سيد الكريم الكريم أين الوجود سيد الوجود أين الوجود سيد الوجود صل علي باسمك المجيد ولا تريد ربنا مريد له أريد
تريد ربنا مريد وأريد ولا يكون ربي غير ما تريد كده حاج مالك نانا nee na léeg-léeg ma ne ñajj dara man Maodo bëgg a bëgg dara léeg-léeg ma ne ñajj bëgg a bëgg dara gannaaw gi ma gis ne yàlla bëgg na lu wuteeg li ma bëgg ma nasaxal sama bëgg-bëgg ba ci biir bëgg-bëgg yàlla te xaw am na fu mu ne taraktu ila i'tirad al qada li ajliba minka rida bi rida fa ma minka illa al jamilu sania لأن الجميل جميل القضاء فكيف اعتراض ذليل حقير برب كبير جميل القضاء sida xaj Malik nee na xaw ma kan la waaye man Maodo du ma gaaral dogalu yàlla lu yàlla dogal rek loolaa gën ñu ne ko lu tax mu ne yàlla bokk na ci turam yi ku rafet kat ku rafet kooku ba tagg boppam te moom moomu di tagg boppam mooma kon du dogal lu dul lu rafet waaye mu ne man jaam bu xeebu bii di Seydi El Hadji Malick su ma gaaralee dogalu buur bu màgg booba di yàlla lu cay xew maa cay loroo rek kuy ànd ànd la ku xam sa borom Seydi El Hadji Malick yàlla nañ ko yàlla fayal waxtu waa ngi jeex timis jaa ngi ñëw te damay ñaanoon sëriñ bi yem ci timis man dama doon fëgg bunt yi dama doon fëgg bunt yi moom bu ñëwee caabi la yor incha allah mu naan ko kàccit wax nu lu ne ci biir néeg bi nu jariñoo ko ba déwéna ci mbooloo mi maa ngi gërëm ñëpp de dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg gàcce ngaalaama ma leen góor ñi yàlla leen yàlla fay de dëgg dëgg dëgg dëgg seen mobilisation yii ngir diine ji rek ak tariqa bi rek ngir yàlla yàlla rek ko méngoo yàlla doon ko mën a fay yàlla leen yàlla fay jigéen ñi maa ngi leen di beral cant génn naa ci li ma waxoon man dama doon wax rek nekk dama doon tâtonné dafa am ko laaj fiñ bi ni ko kañ lañu bëgg a tas mu ni neel Habib mu wax rek kon nag damaa sopp Habib yemal kon nag naa wax rek ah ah waaye dabaatal nan ma sëñ bi ne lem neex na waaye du dund de ah kon nag am na benn mbokk nee na na ne ci digg bi maanaam na digg doomu nee na na équilibré bu mu ëpp bu mu yées te équilibre xam ngeen ni même ci wàllu médecine ci la nit di dund ku équilibré wul du sotti même ci régime réew mi bu équilibré wul du sotti wa kadalika jaalnaakum ummatan wasatan kon na diggu doomu na équilibré bu leen ma ñedd ba mu jeex ndax fas bu ñuy dawal ci pénc mu ne laa te démb ba léegi soox naa ñaxal naa xëy naa kon nag nan julli te te ñëw nag waaw waaw lu ci def trois minutes cinq minutes yi de sëñ bi dama la doon ñaan ñu woyal ma ko benn way way wi nag boolewuma ci góor jigéen ñi laa ko may bégale leen ko ci seen taxawaay way wi ma commandé nag man mooy nja mbana yaa ngay bax fa njaarnde reer ba jag saaw
ala bi ma
ndax kat jëf ku ko deful ngir yàlla amul ixlaas sellul jëf ja kenn du la fay sidina ali ibn abi talib karamallahu wajhahu dafa am fu muy jàngale jëf joo xam ne bakkanu nit mën na caa dugg ba wax ca benn sew sew limaamu ali nee na dafa nekk ci benn xare songoog benn yéeféer limaamu ali nee na dafa nekk ci benn xare songoog benn yéeféer nee na bocc jaasi dem ba bugg a rendi yéefar ba yéefar ba tifli ko ci kanam ba ba tooy xib fekk mi ngi war ci digg biiru yéefar bi mu ne ñokket bàyyi yéefar ba mu dem bañ ko rey ñu laaj ko ni ko waaw lu tax reyloo yéeféer bi ak ni nga ko jekkoo woon mu ni su ma ko reyee ci période bi dem safara bi may songoog moom maa ngi songoog moom ngir xeex ak moom ngir lislaam waaye bi mu ma tiflee salteel sama kanam yëg naa mere mu ma ko mere ngir sama bakkan ma xam ni su ma ko reyee tey dem safara jëf ju sell jafe na de bari na koo seen muy xaatar xaatar yi ne man lu may def yàllaa tax te bakkanam rek ay ilimaanam bari na koo seen naa ni muy xaatar xaatar yi naan lu ma def yàllaa tax te bakkanam rek mooy ilimaanam te yar yépp bi ci gën a jafe mooy yar sa bakkan ndax bakkan dafa saay-saay am na xadis buy nettali ne yàlla bi mu bindee xel dafa waxanteeg moom ni ko yaa aqlu man ana yow xel maa lay laaj man may kan xel tontu ko ni ko anta rabbuna alkarim yow yaay sunu borom bu tedd ba mu bind bakkan ni ko yaa nafsu man ana yow bakkan maa lay laaj man yàlla may kan mu ne ko anta anta yow a yow mu ne ko yow bakkan yaay kan mu ne ko ana ana man a man te yow a yow man a man ay nawlee fa ne moo tax bakkan dafa doon wétti yàlla nawle sunu boroom woo malaaka yi ni leen lakk leen kii bëgg a nekk sama nawle te man du ma nawle kenn ñëpp sama jaam lañu malaaka yi jël bakkan dugal ko ci safara lakk ko juróomi téeméeri at génnee ko yàlla laajaat ko ni ko yow bakkan may kan mu ni ko ba léegi ant ant yow a yow mu ni ko yow yaay kan mu ni ko ana ana man a man yàlla ni malaaka yi delloo leen ko ci ñu jox bakkan yëg yëgu jëmm lakk ko ci safara xiif téeméeri at googu yoon génnee ko sunu borom ni ko yow bakkan yaay kan mu ni ko ana abduka daif may sa jàmm bu doyadi bi mu ni ko may kan mu ni ko anta rabbuna alkarim yow yaay sunu borom bu tedd bi yàlla ni kon nañ woor ndax ñu yaru kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqoon bakkan moomu nag li muy laaj lekk ci gën a tuuti bakkan dana gunge nit ba mu jëm ci mbooloo xool siis yu rafet ya ñu teg ci kanam mu ne bu ma ca tegul bu ma ca toogul gedd loolu ku mu yëkkatee ci fafal toog nag fauteuil du jeex mu ngi fu ne woote wu wuti wu- wuy ji woote bi yàlla moo jara jóg waaye ñu teg la ca kanam jarul jóg te sayiduna muhammad nee na rubba ashaafa agbara madfuun inda al abwaabi law aqsama ala allahi la abarrahu bare na ko poussière mbubb ma jotul mu ñàkk fayda bu yegsee ci bunt bi ñu ne ko xajal ñu dañoo yàkkamti ba beneen te bu dogu woon ci yàlla tukkal àddina àddina jeex ngir maqaamam ci yàlla uwaysul qarni tegtal la ci uwaysul qarni tegtal la ci dafa rëy cër ci yàlla ba yonent bi di ko jàngale te juddoogul yonent bi jàngale na uways al qarni te booba juddoogul dafa woo sayidina omar ibn al xataab ni ko am na benn waay bu ñuy wax uways ñu ngi bokk ci al qarn qarn ñu ngi bokk ci maraada maraada ma nga nekk ci yaman uway su moomu soo ko gisee mbaggum càmmoñ mi dafa am benn jib jib baa ngi toll ne dërëm foo ko gisee na la ñaanal yàlla lu mu ñaan mu nangu sidina omar jël not ya denc ba bi fi yonent bi jóge sidina abubakar toog fi ba jóge fi ba ci xilaafa sidina omar ibn alxataab benn wafd benn délégation jóge yaman ñëw nuyu omar ba pare mu ne leen fu ngeen jóge ñu ne ko yaman mu ne fu ngeen bokk ñu ne ko ci xarn mu ne fu ngeen bokk ba tey ñu ne ko ci maraada mu ne hal fiikum uwaysul xarni ndax uwaysul xarni nekku fi ñu ne ko am na ci ñun ko tudd uways de si dina Omar ne bàyyi leen ma xoolal ko sama bopp ñu ko xool ba seen ko ci catu mbooloo ma li ko yonent bi doon borom kersa la foo ko fekk day sëgg mu seen ko mu sëgg nii sidina Omar ni ñokket ñëw jàpp ci loxo bi indi teg ko ci kanam ni ko dama lay ñaan nga ëñ sa poqataan mii ma xool mu ëñ poqataan ma sidina Omar bëtam ne dajj ci jib ba mu fóon jib ba ni sadaqa rasulullahi zahiran wa batina rasulullahi lu mu wax dëgg la ci biir dëgg la ci bitti tàllal ko loxo ni ko ñaanal ma yàlla mu ne ko man xaw ma lu may ñaan di mu ne ko yonent bi nee na am nga lijaaba loo ñaan mu nangu te mbooloo moo dem ku mel noonu ngi ci te signalé wuñ ko mbooloo moo dem ku mel noonu nga ci te signalé wuñ ko te gis nga daraja moo gërëm jarul tasu bokk mënoo ci am lu doy ku bëgg daraja loo ko yëkkati mu pompe bakkan yi ni doyul ku bëgg xaalis lu mu denc ne doyul te wërsëg moo tax nit ñi di xeeb seen morom te wërsëg jarul sàggee sàkk sëg niñ ci tudd ko yàq bare la dem sëg ya néew la dem sëg ya kon koy boo noppalu maa ngi nuyu sama papa alxaaji Mouhamadou Moustapha Sow docteur maa ngi nuyu alxaaji Mamadou Pay ak délégation bi mu àndal papa Moustapha Sow nag bëggul ku koy tudd ci mbooloo waaye yu baax yi nag buñ ko doon nëbb kenn du tànt di wax ci yonent bi yu baax yi bu ñu ko doon nëbb kenn du tànt di wax ci yonent bi man yàlla dafa dogal ma xiibon damay feebar lu baree baree baree baree bare mu nga ne la cog ca gannaaw waaye waxtu wu ma feebaree lu ci war moo koy def benn bis ma di ko gërëm mu ni ma bul ma gërëma ci yàlla moo tax ma di la faj ak bëgg nga gën a mën a nettali waxu Seydil Hadji Malick te booba entraîné ma deux mois deux mois kon nag naa yem foofu te lu ma xam wax bu ma génnee kon kon lu ma lu ma mën ñaan su ma génnee waaw maa ngi tëj waxtaan wi ndax ca booba ba léegi maa ngi wax mel ne barigo buñ teg ci mbartal rek di tararari rek te wax musiba la yal nañu yàlla musal ci shahwatul kalaam gis nga jërëjëf ngand la wallaay dëgg la ngand la ah kay
yàlla rek moom jaam ñi keneen ku leen woo ba ñu ne rëg rëg wër la sa moroomi jaam nga woo yàlla dong moom moom jaam ñi huwa alwaxidu zaatan yàlla kenn la ci jëmmam ja walwaxidu sifaatin kenn la ci meloom ya walwaxidu asmaan turam yépp moom kott moo ko tudd yàlla soob na ko mu bind soob na yàlla mu bind ba mu bindee ba noppi mu tànn ni li ma bind lépp nit ñee ma ci gënal nit ñi julit yi ñoo ma ci gënal julit yi yonent yee ma ci gënal ñaar fukk ak juróom la ci alquran tudd yonent yee ñaar fukk yaag juróom juróom yaa ko ci gënal gannaaw gi mu toog loo ñeent ñu joxañ kenn ki te mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi moomu la mawlaana cheikh alxaaji malik ne ku yàlla jox xam-xam ngay tagg taggal yonent bi wala nga essayer tagg yonent bi ndax tagg ku yàlla tagg tagg ko dana jafe waaye Maodo nee na dana yomb en même temps ñu ne lu tax mu ne suñ la nee lu tax ngay tagg rasulullah nga ne ki bind ñëpp jiitu na ma ci tagg gi na roomu noo ngi sàkku moos sana al mustafa tagg ku ñu tànn ka baadama ata gannaaw ba nga xamee ni ñëw na sanaun aw tagg jamilun mu rafet min al haadi mu jóge ci yàlla jamilu rafet min al haadi mu jóge ci yàlla mu tagg ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sanaun aw tagg jamilun wu rafet min al haadi mu jóge ci yàlla alayhi mu tagg ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi ñi mu jaboote bari na rasulullahi ñi mu jaboote bari na waaye cheikh na ahmad tijaani moo ci am chance yonent bi ne ko anta waladi xaqan anta waladi xaqan anta waladi xaqan yaay sama doom dëgg-dëgg yaay sama doom dëgg-dëgg yaay sama doom dëgg-dëgg ba ko borom xam-xam yi dee gëstu pour firi ko dañu ni jikko jee tax waaye deret ji ñi ko cheikh bokkal bare la xam nga lu tax
waxoon naa bay tëj te daaw góor damaa am ñaare dama ko naan daaw góor waaw góor léegi nag mu jóg indil ma beneen uslub beneen style bu bokkul sax ak bi ma doon waxee waaye comme nag noo bokk teen tey laxasooy goj ma fekk si ko ci pour dundandoo ak moom li mu béggee di leen ko béggalee waaye nag léegi mën ngaa toog sit down mën ngaa toog nii mën ngaa toog nii mën ngaa toog nii mën ngaa toog nii mbooloo mi ñoo ngi sant yàlla di julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di leen baal wàq di leen ñaan ngeen egg suuf te bàyyi jaabante bi bàyyi déeyantu bi am na barab yoo xam ni ku fa toog kii wax amul benn dayo waaye li muy wax am na dayo bokk kii wax moom mën naa bañ a am benn dayo waaye li muy wax moom am na dayo bu ko defee bu ñu fi toogee kenn ku ne na fàtte boppam ndax rasulullahi fàtte boppam ndax yàlla min bind fàtte boppam ndax sayyidu cheikh ahmed tijani fàtte boppam ngir sayyidu xaaj malik te njabootam toog fi ñun ñëpp ñu bokk déglu man li may doon wax maa ngi koy yemale foofu di gërëm nag daaira waa cité Soprim di gërëm dawaa ir yi fi teew si yépp ndax ñun ñi yàlla na too waxkat yéen ñi ni seetaan yéen ñu def ay nit bu ma duggoon ci koñ bi léegi xew mi tas ñu seen ma may joxar bi waxatuma damay waxtal waxatuma damay waxtu waaw dañ naan waa ji da nekke coom lu bari yëpp yembul ndax seen naa ko ci mbedd moom kenn muy waxtu waaye li feeg nit ñaa ngi ma wër nag may wax waxtuwuma damay wax kon yéen ñooñu di déglu ngir yàlla ñu gërëm leen nag ngir yàlla di leen encouragé nag julit amul lu gën lii ak lu la ci waay mën a wax ak théorie bu la waay mën a indil imaamu malik radiallahu anhu borom ngir nii nu nekk nee na law alimtu ann qalbi yasluxu bil juluusi ala kunasatin la jalastu alayha nee na sën bee ñuy tuur mbalit ma su ma wóoree ni su ma fa demee sama xol gën faa yége yàlla sama cofeel ci yonent bi gën faa yokkoo sama cër ci yàlla gën faa dolli ko ma dem rek toog fa waxumaat nag foo xam ne ba nga fi toogee ba léegi nag qaala allahu qaala rasulullahi qaala ijmaa rek ngay dégg yàlla nee na yonent bi nee na borom xam-xam yi ne kon foofu nit mën na faa rooti tuyaaba daje yi ëpp naa xeeb de kon ñu fonk diine ji fonk tariqa bi fonk bennoo bi teqalikoo bi ñu wàññi ko nag ndax mere yoo ay ati ati at xuloo ay ati ati at sa teewul soxla yi fajuwul feebar yi tee wér sëriñ si ñaan ñaan ñaan kenn mënu la am jëkkër chômage bi du jeex nan noppalu nag wasalaamu aleykum wa rahmatullah ñu jox Sidi Aboubacar kàddu gi
asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Seydi Aboubacar ne mi ngi nuyu mbooleem ñi fi toog ñépp kilifa yi ak ñi ci seen gannaaw waaye nag di ci jiital ilimaanu quartier bii nee nag ñu gàttal nuyoo bi ne waaye li nuyoo wund ñu àndandoo rek ñun ñëpp ñu ñaan ko yàlla ndax ñëpp tàbbi ci ne nuyoo ci diine moo di mucc gu sax dàkk ëmb la nag yaag ña nga am ëmbaale la nag ak la nga am yërmande addina ak alaxira yërëm na ci loo def ca tey ko ku lay baal nag ca la nga tey war na laa mën a baal ca la nga teyul barke ci lépp lu nit di wut yàlla dimbali ko ca ba mu jot ca mu defal ko ca barke boole koog nag la mu amoon ba denc ko mu barkeel ko booleel ko ca loolu nag moo di nuyoo bi yàlla nanu ko yàlla boole dafa ñun ñépp moo di assalaamu wal rahmatu wal barakatu alayna wa alaykum wa ala jamii almuslimina kaafatan yàlla nanu ko yàlla defal ne gannaaw loolu nag ñu ànd noonu nag ñun ñëpp sant yàlla ay at a ngi nii ñu fiy daje at mu nekk nag buñ ca jógee mébét beneen beneen ba nag bii neex ñu man ko taxul ñu war a mën bi ci sunu kanam ndax daf lu wóorul bii ci sunu kanam danañ ko fekke wala déet